ab euh, ndaw soose nag euh, sapeur moom ma ko daal di jël euh, yóbbu ko police jot na ci ubbi ab l'enquête accident bi nga xam ne moom moo am tey ci suba ca Mbàkke ab camion virage moom moo daal Euh, dal ci ab dawalkatu euh, vélo dal moom euh, mu faat ko fa mu jaar mu jaar fa ñàkk bakkanam mu ngi nag am la soriwul station bu RFM Mbacke néewu ab ndaw soose nag sapeur moom moo ko dal di jël yóbbu ko police jot na ci ubbi ab l'enquête dañ ko accident bi nga xam ne moom moo am tey ci suba ca Mbacke ab camion virage moom moo dal di